waaw manager Boy Niang. manager Liu Thior. manager Liu Thior. ak kat waaw. Ah, ak Petit Niang. bare nañ duñ jeex ñenn ñi nag dem nañu à l'étranger comme ñoom Koña ak ñooñu ñooñu dem nañu dem nañu à l'étranger. Eh, waa xam nga man nitu làmb man suñu tëggee rek damay ñëw surtout ku mel ni sëñ Modou sëñ Modou dafa nekk nit ku baax koo xam ni ah, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo promouvoir xale yi bari ci làmb tey jii mbër yi ngay dégg ñu leen di tuddee ay roi des arènes nag ay na eh, ay ay vedette wala ay VIP bari na ci ñoo xam ne sëñ Modou moo leen promouvoir kon su organiser il faut ñun ñi nga xam ne ay nitu làmb lañu ñu ñëw assister ci journée bi. ak combat bu mën a tëgg nag. weer coow li bëri dara xewagul coow li bëri dara xewagul. Balla Gaye Boy Niang. Hmm. waa xam nga Balla Gaye booy ñaa du ñaari mbër yi ñoo ko bëgg mais amateur yi làmb yi ñoo bëgg Balla gay booy ñaa parce que deux ans ngi nii ñuy wax Balla gay booy ñaa ba Bal ba ba Boy Niang bëri na fi ak Sa booy ñaa Niang na fi ak ak gi lépp ñuy wax euh, Balla Gaye Boy Niang tey nag Balla gay nee na pare na. booy Niang nee na pare na promoteur bu crédible. manager bi pare na. manager naa pare euh, promoteur bu crédible moo ñëwagul pour concrétiser combat boobu. Eh, looy wax ci Bawol TV. yàlla dafa dafa dogal ni man ci laa bokk ndax 2007 laa àndoon ak Assane Ndiaye mu joge ci Mbappat dugg arène bokk na ci nga xam ni ñoo promouvoir ah Boy Niang parce que combat yi nga xam ne ñoo déclenché Boy Niang yëpp Assane Ndiaye ko tëgg moo tëgg combat ak Brise de Mer moo tëgg combat ak Dolf yooyu yëpp drapeau Aïda Mbodj la ko def te am na yeneen combat yoo xam ni moom moo ko tëgg aussi kon Baol TV ci làmb la commencé mi ngi dugg dans l'audiovisuel nañ ko xool fa mu jëm parce que xale la boo xam ne xale boo am ambition la moo def ñepp mag ay pël ben do ma lay des lay kuy jël na la pël xale yi jëlante xale yi da lay daan wut takk ba daanaan la de la ilaha illallah njool de ba ko mbat wet gi mu ko féete wóorul fu ñu mujjee ñoom ñaar daan na la <laughs> fu mu mujjee mbatu coral ma laa ilaha illallah assurance bi du nit ko xatar bi laa ilaha yaa ngi mag fu mu